likun bikun sarmadan wajal jërëjëfaat sëriñ Béthio sëriñ Béthio amul dendandoo soxna Aïda Saliou Thioune dëgg dëgg jëmi sëriñ Béthio yàlla na fi yàgg lool te wér te ànd kook ñaari buntam yi soxna Botor Saliou Thioune soxna Adja Saliou Thioune ñoo ngi sant soxna Aïda bu baax euh, di ko siyaare waaw di wax rek ne fi mu nekk nii daanaka euh, ñu ngi ci njeexital bi ndax euh, dernier camion yi gis na ko ñoom la ñuy chargé nii Euh, jëli nañu li nekk Mauritanie lépp génn ko actuellement ñoo ngi fii à Madina Diabé pour sa def dernière charge yi nga xam ne mooy oto yu mujj yi nga xam ne moom la ñuy yàpp pour ñu mën a dem Madinatu Salaam waaw moom day gis ngeen liggéey depuis boobu ak naga ni lépp ndimbalul soxna si la waaw ndax lii moom kéemaan gi xam naa ne ñun ñii ñëwoon fii sax yéem nañu ak tawféex ji ak li ñu fi fekk Euh, ci jàppandal ci lépp ak ñi ñu fekk jàppoon ne umpale nañu sax soxna si waaye mel na ni ñoom euh, dañ ñoo yokkaat beneen bëgg yeneen cofeel ci yitte ju ñu am ci soxna si ak bëgg gi ñu ko bëgg a gis ak ni yëf yi demee ak yéem gu mu leen yéem ndax ñoom jàpp nañ li moom bi fi sëñ Béthio nekk rek la daan am. kon gisuñu ko wan yaakaaruñu woon ne keneen ku mën def li sëñ Béthio daan def dana am ci jamono waaye ñoom nee nañ lii ñu gis fii nag yii fi jaar boo bëgg nëgë ni tàmbale Mauritanie ñëw Sénégal ba fii ñuy yeb dernier camion yi ñoom nee lii moom mosuñu koo gis ku dul ci sëñ Béthio loolu nag nga xamee ci ne tànk kanam yi sëñ Béthio yi mooy feeñ ndax soxna da ñëpp maase nañu xam ne kat fii mu toll ci jamono ah mooy sëñ Béthio ndax euh, doxin wa sëñ Béthio yoroon te àdduna bépp xam ko ci te te mu doon ci benn képp moom aw doxinam moom sëñ gisaatuñ ko feneen ci kaw suuf gisaatuñ ko feneen ci jamono ku yor woowu doxin wu dul jëmmi soxna Aida bon loolu ma ngay firi rek la sëñ Béthio wax ne soxna Aida yi sama jëmm su ma ne war nee leen jàkk soxna Aida du ma mujjee puso bi muy réer tey jii de ñëpp xam nañ ne puso boobu day mu ngi ne fang ku xool gis ko ku làmb daj ko ndax puso baa ngi daj fépp puso baa ngi ñaw fépp puso baa ngi ndar képp fépp bon ñoo ngi santaat soxna Aida bu baax tey ñaan mu yàgg fi te xam ne ndamal cantaakoon yëpp la ndamal murit yëpp la ndamal nitu lislaam yi la ndamal népp nit ku bëgg lu baax ku ne ndax ñii kat duñu ay murit euh, ay jullit lañu ñu ngi ci yeneen i tarixa waaye ñoom seere nañ ci seen njullit ak li yàlla wax ci jëf ju baax li yàlla wax ci dundal doomu aadama li yàlla wax ci teral doomu aadama li yàlla wax ci yëkkati ñam di ko jox nit ñoom xam gi ñu xam loolu ci jëmmi soxna da tax na ñoom ñu am cofeel ci moom bëgg ko bëgg koo xam ne gisaguñ ko waaye nee nañ dañoo am cofeel ci moom boo xam ne kenn xamul nu loolu nag seen njullit rek nga ciy gis bon rawatina ñun ñi nga xam ne dañuy ay murit di ay cantaakoon nekk ci yeesaluk sëriñ Béthio gi bon ñun ñoo ëpp sag ñëpp kuy amub sag bon soxna yi de sagal nañu soxna yi ndamal nañu ñun dey fi mu nekk nii jooyuñu dara namuñu dara bu àdduna bépp maase woon yàlla rëddaat jamono tracé waat ko ne kenn ku ne tànnaatal ab sëriñ ñun duñu wuti waat fenn fu dul ci jëmmi soxna da ndax xam ne mata nañ ko sëkk te ndap lii mu ñu yeb ndap lii mu ñu diwal ñun de wóor nañu ne leneen ndap lu ñu tiim danañ ko xeeb ba ndabal soxna yi rek ñu mën a doy moo ñu mën a dundal moo ñu mën a reggal moo ñu mën a yóbbu ci sëriñ bi ba ñoo ngi santaat bu baax soxna de saaliwu tey ñaan mu yàgg fi lool te wér ñun ñëpp ñoo ngi ne équipe bi ñëpp a ngi fi. ñoo ngi équipe bi yëpp mboole seen Kambel gaa ñi ñoom ñëpp euh, waagaan gaa ñi ñëpp a ngi fi équipe bi yëpp bàyyiwuñ kenn sëñ Béthio sëñ Abdou euh, sëñ Sall. boo bëgg léegi gaa ñi ñëpp nga ci liggéey bi kenn ku ci nekk mel ni da ngay gën a yittewoo sa morom liggéey bi gën ko bëgg liggéey bi vraiment ñun daal santaat nañu soxna yi bu baax te xam ne moom day xam defar nañu dimbale na mbooloo mi yar na leen ci ay gone yu ndaw nekk fii nekk fi nekkin wii nga xam ne mënoon nañoo ñëw am weneen melo amoon nañu aw weneen doxin waaye kenn ku ci nekk boo ko xoolee ak taalu be ngay gis ci moom ak dëgg ngay gis ci moom ak yar ak i teggin ba liggéey bi yegg si fii mu yegg si bon dañu ne xamee ci ne soxna Aïda Dara sëriñ sëriñ Béthio tànnal na ko mbooloom yaral na ko mbooloom ba lépp lu waaye di wut ci mbooloom bu baax boo ne boo boo tàbbee ci mbooloom soxna Aïda Saliou fekk ko ci biir jànkatu xuraan jànkatu xasida nit ñu baax qualité doomu aadama yi yàlla di wax ci Alxuraan ne bu sañoon mbindee fi nii la ñuy mel loolu boo tàbbee ci mbooloom soxna da nga fay fekk lépp bon ñun amuñu dul sant soxna tey ñaan mu yàgg fi loolu te wér ci barkeb Serigne Béthio jërëjëfaat Serigne Béthio Serigne Béthio amul denn doo إلى جيل حماد مواهبه